maanaam ku mu mës a gis ne ah, taxawal ma dénk la doom boo demee nangamati nangamati nangam ndaw yi mujjub jamono lu bari waxoon na ko ci waxoon na ne doom bàyyi leen topp dërëm dana jur bàmmeel yu sori de gis naa bàmmeel yu sori sori te topp dërëm rekk ko jur xam nga waxul topp xam-xam waxul sakku euh, teraanga topp dërëm la wax xam nga topp dërëm nag bokkul ak loolu maanaam eh, boo demee am na ñoo xam ne ñi topp ñu dara dañoo jug rek di dem noonu rek ngir dem dafa xew ak wuti rek waaye leen taxu leen jóg te Cheikh Ibra daana wax naa bu ngeen demee bu mujj jamono ba jamono naqari doom def leen ñu man su ngeen ko defee du ngeen sonn ñu ne ko noo def mu ne damaa nangoo liggéey te néew bëgg-bëgg yéen ñi ma gis mujj jamono nag du ngeen liggéey te bari bëgg bëgg xam nga xoolal loolu képp boo ko xoolee ci réew mi tey kenn ku ci ne li ngay dundee li nga bëgg a dundee li nga bëgg a doxal xaaju te tolloog li ngay liggéey mais bu boobaa bu ngeen defee ni man bu ngeen bëgg am nangoo liggéey ci néew bëgg bëgg daal di wax ne dërëm yi bu leen ko doyee denc doom doyee leen ko sàkku ngërëm ndax nee na dërëm ba ko suñu borom di jox nit denc taxul wut ngërëmal yàlla mais xaalis loolu rek lay jël te nit ñi yeewooguñ ci loolu ba tey daal ne ndax dërëm yi bu ngeen ko fi wàccee lan moo ci andi wërsëg mais bu ñu wëree sëg yee tax ñuy bu ñu wëree sëg ba def nit ki ci biir ba ñëpp wan ko ginnaaw dem lañ ko bàyyee moom la moom mooy li mu joxaloon sëñ Bamba waaye lam bàyyi ci kaw suuf ñu koy waaj a moomatu ko daana daana digle digle yu bëree bëri bëri bëri bëri ci ndaw daana wax naa ndaw suñ mbàkki njaa abdu soose nee na ma wax naa ndaw loo gis ba xam ndax tekki naan déet xool ko moromi bàyyi yi lay def moroom ñu ne ko ah wàll luy mu ne foo ko fekk moromu bàyyam yi lay toogandool ñoom lay déglu xam na ne bu fi mbañ ñu jógee moom lañ fi bàyyi waaye ndaw loo gis fonkul mag Cheikh Ibrahima neen di daw mag ñi nee bés bu ko fi mag ñu bàyyee du doon mag mu magi daa wax ci mag ñi ñu bàyyi def li bu ëllëgee mag ñu xam ne mag mu magi la daana dénkaane di wax ni tamit buñ demee ba ci kanam jotaay murit lu mu neex neex neex ba ma sëñ bi liggéeyloo rek a fay ndam daan kon bu ngeen toll ci liggéeyal sëñ bi liggéeyal leen moo gën ngeen dem ba mu romb leen ngeen di wax lu ngeen ko defal woon te ñëpp xam du dëgg ndax ku leen xool xam du te loolu xam nga dafa bari ci jamono suñu nekk ni nga xam dañ naan sëñ Ablaat nee na ma sëñ nee na ma te dara amul te bañ ko waree def bintaan yooyu lu ma bett sax waaye daana wax naan bu leen def aw sant it muy seenu sëriñ tere na ko de waa ne diw sant rek ne lu mu la def loo nga def ko lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi mais déedéet ku ñu yar tarbiyu ko ne kooku mu jël lañ defoon ci moom def ci te ndaw yu bari fi mu nekk ni aw sant la ñuy jaam te Cheikh Ibrahima noonu na bu leen jàmm aw sant te yéen ndaw ñi maa ngi leen di digal saa bu ngeen xëyee jël leen seen naxar def ko muy seen bànneex xam nga ndaw lu def noonu ah, di di di di di nga mucc de neen jël leen seen naqar def ko muy seen bànneex bu ngeen xëyatee wéttali ko leen yàlla bu leen wéttali ko mbindéef ko ko nit ñi ndax ko wéttali dana dem ci nii bala wala mu dem ci meli dana la ba fii ci àdduna du la romb wala mu dem ci bàmmeel yu bala mais donc wéttali leen yàlla te bu leen def aw sant muy ak sëriñ te bu ngeen xëyee na ngeen góorgóorlu ci jëfal yàlla ba jant bi so loolu wax bu ngeen xëyee góorgóorlu leen ci jëfal yàlla ba jant bi so bu leen neenal seen jëf loolu itam dafa daan tari daana tari yu bëree bëree bëri di digle ñu bëree bëree bëree bëri te mag ñi nga dañ ko daan man ma waaw kon la ilaha illallah an la ilaha illallah la ilaha illallah